salaamaaleykum monsieur le ministre ñu ngi leen di nuyu di nuyu équipe yi nga xam ne ñoo ànd ak yéen di leen jàppale ci liggéey bi ñu ngi nuyu euh, suñu collègue député yi fi teew yëpp alors euh, li ñuy waxtaane tey dafa am solo ak d'un titre euh, parce que nous parlons du ministre du développement industriel et des petites et moyennes entreprises ñu waxoon ministre de l'industrie kese gis-gis day mën a gàtt mais on parle du développement industriel liy jëlee industrie fii yóbbu ko fekk et ci loolu dama bëggoon ñu jëlaat le rapport à la page parce que 200 page 291 jëm mooy def effectivement un résumé exhaustif de ce que nous avons au niveau de wax ni

partant de ce constat, partant de ce constat, de ce constat, on peut se poser et peut-être même nous répéter parce que on, nous avons tous fait les constats ensemble. constat yi mooy boo génnee Dakar dem Thiès jéggi Louga dem Ndar wëlbati bi jël avion wàcc Ziguinchor industrie amul fenn ci Sénégal et je juste rappeler que dafa am un point important ma baamuwaat ko la transformation structurelle de l'économie et la croissance la transformation structurelle de l'économie et la croissance waxoon naa ko fii bërki démb dama ciy ñëwaat monsieur le ministre mooy une analyse de la situation de l'industrie parce que bu ñu waxee industrie évidemment dañ koy positionner ci ce que l'on appelle le secteur secondaire parce que dañoo jàpp ni bu meññeent amee bu mbay amee bu wërsëg bi balla ji amee dañ ñu ñu mën koo teg ci marché di ko jaay li gën a yemb mooy ñu toggee ko fii wala ñu xaajin toggi ni muy produit fini wala produit semi fini bu fekkee dañuy jéggaani jaay ñu jéggaani jaay waaye loolu étape fondamentale la bu ñu bëggee am vers une transformation structurelle de l'économie buy jur croissance buy des ci réew te ci loolu dama bëggoon encore dinaa ko baamuwaat monsieur le ministre de l'éco de monsieur le ministre des finances et du muy les secteurs yi nga xamante ni bi mooy le secteur primaire le secteur secondaire le secteur tertiaire seen contribution ci biir économie Sénégal depuis l'année 1999 ma waxaat secteur primaire bi 1999 ba 2007 mi ngi contribuer pour 14 virgule 9 pour cent secteur primaire secteur secondaire bi mi ngi doon pro joxe 24 pour cent secteur tertiaire mu ngi doon joxe 50 virgule 8 pour cent diggante 2008 ba 2013 secteur primaire bi mi ngi joxe 14 virgule 6 pour cent secteur secondaire joxe 22 virgule pour cent secteur tertiaire bi joxe 53 virgule 1 pour cent diggante ak léegi transformation ak transformation structurelle de l'économie jàpp naa ne xaj na fi mais bu ñu ñëwee diggante 2014 ba 2021 secteur primaire bi mi ngi joxewaat 14 virgule 8 pour cent tolloog daanaka li mu doon joxe en 1999 secteur secondaire bi ngi joxe 23 virgule 6 pour cent secteur tertiaire mi ngi joxe 51 virgule 7 pour cent ana transformation de l'économie ci wàll bi ça peut nous poser des questions beneen question bi muy indi mooy bu ñuy wax transformation structurelle de l'économie bu ñu jag jal jëllaate ñetti jéego yi ñuy dox secteur primaire secteur secondaire ak secteur tertiaire gënul ñuy jéggi secteur secondaire bi parce que industrie foofu rek lañ ko foofu rek lañ ko mën mais bu ñu xoolaatee agriculture bokk ci biir secteur primaire bi mi ngi doon joxe 1990 ba 2000 contribution dafa nekkoon ci 63 4,1% dans le redéploiement de l'emploi primaire 2001 2013 mu joxe mu wàcc joxe am yaakaar ni xëy na secteur secondaire bi dina ko capté ma wax ci secteur secondaire bi mi doon joxe 99 90 à 2000 9,4% 2001 ba ba joxe capté lépp parce que ci diggante bi. secteur tertiaire bi moo jóge woon 27 pour dem ba 54 virgule 2 pour cent entre donc mu indiwaat ay questions légitimes te ñun ñi nga xamante ni bii dañoo dëkk ci suñu dëkk yi ñun ñëpp dañoo seetlu woon ni dañu daan wax nouvelle société textile du Sénégal Sotiba Sodefitex SIB ba woon doon génne neuf produits di ko teg ci marché bi tey ñaata lay génne toute cette nostalgie là c'est des constat yoo xam ne mën nañ ko def te mën ci andi ay préoccupations moo tax benn préoccupation yi monsieur le ministre damay laaj ndax dañuy privatiser ci sama bos c'est une question que je que je mets dans le am ci tontu ma ñëw ci li ñu wax ni euh, l'accès au financement monsieur le ministre c'est vrai état def na ay effort indi fonds yi indi fonds mais li may wax nii monsieur le des finances et du budget laa koy jëmale monsieur le ministre euh, ñaata PMI ñaata la suñu banque de second yi wuteeg banque yi état créé accompagné depuis 2014 soo gisee may laajte préoccupation bi dafa am foo xam ne ba ñu fa tollee banques yi dañoo nekk li ñuy ooyee sur liquidité sur liquidité boobu mooy dañoo yor xaalis boo xamante ni bii dañu ko waroon a jël ci financement ñu tànn ñoom mu mel ni dañoo tànn pour dugal ko ci ay opération yoo xamante ni ay opération yu yomb la ñu rapide pour sécuriser seen ressources pendant ce temps gis nañu transformation bi ñuy wax ci industrie des na fan lañu leen di war a ñoom koj ba mën a dajale banque yi may wax nii ak industrie yi nga xamante ni bi mooy yi nga xamante ni sénégalais yi ñi fi toog face à cette surliquidité des banques euh, monsieur le ministre dinaa peut-être terminer ci ñëw ci benn préoccupation benn question bu may laajte xëy na nag di ma wax ne ma ministre des mines moo concerne c'est le parquet régional des essaims en Pologne enquête bi mu doon def ci dossier African Investment Group ak société AVS e FC immatriculée aux Émirats dafa doon laaj ne nañ ko jox ay information ci société yi est-ce que dossier bi dafa yegg ci yow wala ci ministre des mines la yàpp li may laajte nii c'est pour préparer une demande par rapport à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur parce que seen une question boo xam te ne bi ils ont demandé euh, benn benn enquête ici au Sénégal pour compléter les informations au du parquet de Podor mu nekk ay préoccupations yoo xamante ni ñoom am na lu ñu dem nañ ba tudd lu ñuy waxtaanee fii jar a bàyyi xel ba bëggoon juste bu fekkee ne dafa yegg si sa ministère nga wax parce que dañu ñoom ministère de l'industrie et des mines loolu si xaw yàgg na quand même mais fan ñu ngi ko yëngalaat moo nekkoon préoccupation yi bëggoon wéccoog yéen di leen sant leen gërëm bu baax merci beaucoup